des comptes yeeg mm-hmm. justice ici mm-hmm. ak réforme yi nga aussi le président Bassirou Diomaye Faye aussi mm-hmm. annoncé encore. on avait vu même comme la population euh, de bëgg rek euh, presser le pas du président Bassirou Diomaye euh, Faye par rapport à li nga mon nek moo si ay autorité yu fi qu'on yu ay dossier yu cours des comptes épinglé woon mais de mel comme ñoom ñu ngi si seen logique du double ba tay wala sax dem jusqu'au bout ci euh, li nga xam mo nek nekk dossier hmm. mais euh, sur la base euh, lépp rek loo xam ne na walum lois et règlement buñu buñu bu ñu sukkandikoo si kàddu Bassirou Diomaye Fay sans le dire daf nan carrément justice certes mais du am li nga xam mo nek chasse aux sorciers waaw justice dina am te ma commencé fi Moustapha Mbaye daanelee rek ci wàllu poste yi nga xam ne doon nit bi nga ci bi ma ci gën a jàpp mooy poste bi président Bassirou Diomaye Faye defoon. Mhm. di dénoncer ni justice doon doxee. xam nga loolu lañ ko tëjee onze mois. Mhm. mu ñëw ci nguur gi li mu njëkk a posé comme acte bu mag mooy les assises de la justice woo acteurs yëpp pour ñu xool naka la ñuy justice bi pour mu dox comme moom na ma ko nammee woon maanaam la mu doon jàmbat ci postam boobee tey jii yàlla teg na ci position bu mu ci indilé saa bu mu ci bu mu ci indee saafara. Mm. ba noppi ñëpp nangul ko ko ba teunk euh, ay proposition ci ben rapport légui ci walu reddition des comptes. oui deug la nit ñi yakamti nañu. Mm. parce que tooñ gi dafa bëri yak gi dafa bëri opulence bi ak caxat caxatee bi dafa bëri amna ay dossier yo xamné daf fi tégué soxlul enquête bu xóot yi rapport la. yii ay fee la yoo xam ne boo ko tegee ci taabal rek maanaam fausse facture cinq milliards daan signé par daaw Daouda Diallo. ak Abdou Karim Sall loolu rek dossier la. parce que fausse facture benn ministre des finances waru ko signé. trésorier trésorier général sax du rëcc. kooku lu leer la. benn maire boo xam ni quartier Bamba Fall euh, koñam 26 quartiers la am mu gonflé ko ba cent 108 quartiers. pour justifier ay ay fayu euh, euh, chef de quartier xawma délégué de quartier euh, pour ay détournement lolu lu rapport woné la lu lèr la noonu lañ fi fekkee ay rapport yu bëri mm. ba noppi lu ay audit yu bëri tamit mais lolu yépp nak ñun ñu yakamti ñi il faut que ñu xaar parce que président néna amon na liste bo xamné pour ay mouvement ci justice bi mais daf ko téy di def ay enquête di baña a ci lu muy def parce que Nous sommes euh, euh, euh, sous pression avons un agenda de façon lucide sans ci pour satisfaire une clameur sociale nit ñi nak dañu subir injustice metti rek ñu parce que dañu gis ñi nga xamné ñi ñi ñi ñi nguur gi fu hum. rendre compte président bi il y a 9 personnes 9 kese yu fa am 1700 parcelles 9 personnes Il y a 34 personnes il y am plus de 16 000 parcelles té néna a des fois am na ño xamni bu leen gisee ci télé bi euh xam nga bëggul tuddu donc ça veut dire qu'ils n'ont même pas le droit à la parole légui askan bi nak mm. di wax di euh, justice déroulé mais je crois que mom nee une semaine moo ci des une semaine dana dana dana dana dana dana dana régler loolu. waaw waaw changement yi dana ko opérer. une semaine il y a des magistrats qui vont bouger les Clédor. waaw ils vont bouger waaw dans dans une semaine. là oui kon nit ñi nañu patient tuuti ba ñu teg li ñuy teg yëpp ñu jël dossier ben par ben régler ko parce que rapport yi na je crois que la justice sera même submergée Moi je crois que dinañu créer un parquet financier spécial pour teggi cours de tribunaux yi yenn parce que dafa na un une cour spéciale parce que mais dangay xool rek ba muy jox euh, Gueye nee yow ba nga procureur 73 dossiers avec avis de poursuite 73 le Covid 19 Ben rek la bo xamné c'est vrai que c'est la cour des comptes mm. mais dafa épingler neuf ministères waxuma daaj ñeneen ñi gagné marché ministère ministre, neuf donc quand serait-il de 73 rapports yo xam ne ñu jóge OFNAC té DCMP ngi fi ARMP ngi fi ak cour des comptes OFNAC rek newu fi gis ngeen ni ah, déployé nañu CENTIF mm. déployé nañu IGE ñaata enquête mm. plus d'une trentaine d'enquêtes ci ay structures yëpp ñu ngi leen di auditer fi mu nekk nii. Mhm. ay SAR Senelec partout ñu ngi koy auditer yooyu aussi dafay am résultat parce que boîte yooyu mais dafa am ay jalgati yu bëri bëri bëri bëri yu ci nekk kon liggéey bi yaatu na yaatu boo xam ne il faut que ñu sécuriser ko nga xam ne une fois. ñu teg justice justice mooy doxal boppam exécutif bi yoon bi du yoonam du ci nekk président Diomaye même ku ko jege bu taqee sax. D'autres mën intervenir parce que aura créé une machine comme ni nga la conviction que justice sera faite que am justice indépendante m'a beaucoup satisfait parce que j'ai dit parce que demande sociale donc demande sociale tamit président victime yi manifestation

lu lu le c'est un assassinat qui est lié ce mm-hmm. sont des assassinats qui sont liés au rapport interne de la gendarmerie parce que journal journalu Madiambel je crois que waxoon na fini euh, affaire Didier euh, euh, c'est à cause de Pape Alignan, c'est lié au dossier de Pape Alignan. c'est Pape Alignan, Niang lan la def gendarmerie voilà Cheikh Ousmane je vais vous wax Un argument sa benn argument bu reprendre temps argument bil ça me revient parce que vous da nga uh-huh. Euh, Pape Alé uh-huh. scandale boum exactement non nga ko wax va le mais dafa rapport gendarmerie rek ni ko hmm, argument uh-huh. pertinent je l'ai repris deux ou trois fois ci ay plateau. bon on corrélé ko ak poste euh, euh, Fadilou Keita bi nga xam ni. Ah. dafa Didier rek. donc kenn du ci wax. donc ça veut dire que ñoom am nañ ci benn manque de sérénité ba Bassirou Gueye procureur ba woon def ci conférence de presse confirmer liñ ci doon wax yëpp maanaam am na lu ci dossier bi ay ay photo am na lu ci wàññi ay déclaration à décharge pour l'inculper pour l'accuser donc loolu je crois que pour revenir ci thème euh, reddition des comptes ak justice sociale bi nit ñi di réclamer loolu lu incontournable parce que jub jubal jubbanti rek ça veut tout dire loolu nak du chasse aux sorcières donc chasse aux malfaiteurs la parce que lu ñep bok mais xoolal exemple euh, neuf personnes am 1700 parcelles alors que alors que ñun amuñu yow ñaata parcelles nga am Kalman <laughs> mais c'est pas juste non c'est c'est de l'injustice sociale donc yooyu ak ñi nga xamni dañuy jël suñu alal di di di ci def n'importe quoi nek fi ba nopi di yak nguur gi lu melni ni xebe mel ni ñoom ñoo war wax mais lolu ça durera un temps mais euh buñu taxawale li ñuy taxaw ci justice ba pare comme président néna d'ici une semaine lolu yagatul ñi yakamti nañu patient mais ñom war nañu conscient mm-hmm. euh justice sociale moy liñ leen gëna liñu gëna sakku ci ñom li ñu gën a gën mais mm. euh, justice bi euh, présence euh, conseil supérieur de la magistrature mm-hmm. tontu bi on dirait que mbir président il est toujours c'est clair obscur aussi Clédor. non day xaar. Mm. day day xaar des uns et des autres ñi d'accord pour mu mais mon position moi pour mu jóge mais mënul bañ tenir compte ci position magistrat xam magistrat li ñuy ragal. man man dama fa nekkoon. Hmm. ñu bàyyi len ñom seen biir. mu nekk la république des juges yu ñu redouté won amna ay dëkk yu ko defoon génnee président bi ci conseil euh, supérieur de la magistrature problème am ba ñu dem statu quo ante. Ah dellu dellu si waat ca ca ca fa ñu nekkoon kon léegi moom dafa bëgg gouverner sans se laisser fléchir par aucune pression. mais lu ñu bindoon ci seen euh, biir projet bi nag léegi euh, fa leen koy ranger les par rapport à cette question. loolu mooy bañ a dund ci aucune pression. parce que day xool les intérêts supérieurs de la nation. ak li nga xam ni magistrats yi loolu la ñu gisee ni ci la seen magistrature di gën a dox euh, Ndiap, oui, le président ne s'est pas encore décidé. <laughs> <laughs> le président ne s'est pas encore décidé. Oui. Donc, nous, nous parce que les euh, gars, ils vont très vite en besoin. Oui. La volonté de, de prendre à défaut le gouvernement, nous sommes tombés sur le propre piège. Quel le piège bilan sont tendre Nous avons fait une déclaration de politique populaire. Les gars commencent à travailler. Est-ce que nous avons fait moom daf leen ni le 15 mais euh, règlement intérieur ma ñëw def discours de politique générale mais ñoom lan lañ ko loi lañ parce que euh, euh, débat d'orientation budgétaire kooku loi la bu déclaration de politique générale assemblée nationale bu ko def ministre collaborateurs dafa à la faute donc ñoom ils sont ils sont pris à défaut parce que sérénité parce que l'on ñu def nous fait, annuler le débat d'orientation budgétaire alors que le premier ministre est dans les délais impartis pour tenir sa déclaration de politique générale Nous avons un problème ak ce règlement intérieur. <laughs> Hmm. mais reddition des comptes